ak ak yëleefu tout tànk yi nag ci environnement numérique mu di nag bëgg-bëgg ba ñu nag defandi thématique ci fanweer ak ñetteelu édition bu journée bu ñu jagleel enfant africain tolluwaayu numérique bi nag tiital ba tax tout tànk yi di ci ñaax mag yii lee ñi dimbali leen ci ndax ñi mun cee sàmm seen ak seen yi ak seen yi morom dina wéy yombal loo xam ne vraiment euh, dina leen jox ay ay ay ay yu bari ak ay métiers yoo xam ne war nañ ko mën a jàng mais à côté aussi dañuy gis ni am na ay ay gàllankoor yoo xam ne mën nañ leen koo teg parfois xale yi gis ci ay kàddu yoo xam ne rafetul parfois xale yi gis ci ay photos yoo xam ne ay vidéo yoo xam ne rafetul méngoowul ak seen i at am na ñoo xam ne parfois dañuy làqatu ci ginnaaw aussi di def njublang jëmale ko ci xale yi waaw protection tout tànk yi nag nekk na loo xamante ne ONG éducation ak développement moom xam na ko bu baax ba tax mu jàpp ne nag ñëpp rawatina waajur yi sax am nañ ci seen wàll. sax doom aadama kese kenn waru jël ay photoom ak ay vidéo am di ko. partagé mbala di ko tasaare sans que moom mu jox la ci ndigal donte ne xale la sa doom la donc xale boobu dafa am li ñuy wax àq ak yelleef boo xam ni dañ ko ko jagleel par rapport ak Euh, ak ak image am wala par ak vidéo am donc ñu ñaaxaat waajur yi ñu bañ di partagé vidéo xale yi ak euh, ak ak seen i image parce que loolu mën na leen jullal ay gàllankoor ëllëg mën nañoo partagé ay photo yoo xam ne wala ay vidéo yoo xam ne ëllëg bu ñu màggee ñoom dañuy xeeb dañ mën na nit xeeb seen bopp te lool du doon lu rafet ci ay sayaatar ay woy wala sax ay message ndaw yi nag xamle nañ seen ay bëgg-bëgg ngir ñu sàmm seen vie privée loolee di ak boo xamante ne yenn saay sax ñu sàcc leen ko te duñ ci yëg dara.